gaa yi dañu ko ne bàyyi nañ la suñu bopp loo wax d'accord nañ ci. Mhm. mais loolu ci ay kaddu la yam malheureusement gis nañu que ne am na ay manœuvre ci suuf jamono ji ñu bëgg nekk candidat. bëri nañu xam nga tout à on ironisait yaa ngi ma naan lu tax nekkuloo candidat ak yooyu. et cetera mhm. c'est-à-dire que euh, aujourd'hui je crois que ni annoncé ngeen ko ni vendredi bële le président waroon a wax. il a reçu Benno Bokk Yaakaar il a parlé au secrétariat exécutif national de l'AFP. la la paire mais qu'est-ce qui a été décidé dans ces assemblées bi ñu pare on vous donne carte blanche monsieur le président choisiral koo wax ñu ànd ci loolu la ñu wax en tout cas la ñu jaay ñoom ñëpp mm. tous ces responsables bi ñu génn mais quest a constaté ce n'est pas ça ne correspond pas ak li ñuy doxale mm-hmm. mais je trouve que man dama jàpp ni tous les candidats yi fi annoncé yëpp bu fekkoon ni nekkuñu candidat wala li ñuy wax neexu leen dinañ taxaw demantir ko tous les propos qu'on leur toutes les intentions qu'on leur prête yooyu yëpp bu fekkee nekkuñu ko woon wala doxalewuñu ko duñu duñu duñu bàyyi muy jàll mais qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui mooy sa fragilise un tout petit peu autorité président de la mm-hmm. doit choisir parce que dañ ko yóbbu ci benn niveau boo xam ni ile est obligé boo amul chance de choisir massamb au détriment de Mademba attente bi ni mu mënoon na mënoon na mënoon na woyof. mënoon na woyof li may wax waxuma li ma li ma bëgg affaire yi. déedéet waxuma loolu. je parle des réalités ce qui se passe ce qui s'échange entre ñun. Mhm. ñi nga xam ne ñoo seq parti bi nekk ay responsables les gens sont dans la gêne. Hmm? nit ñi dañu gêné wu c'est ça ah, la vérité. c'est la vérité parce que y a une animosité. ambiante buy am ci diggante nit ñi vous avez vu ce qui s'est passé au siège du parti. Mhm. ça c'est pas une image loolu. ku koo xam ne da nga bëgg ni dans quelques mois war nga dem à la conquête de l'électorat des électeurs war a mën a gagner mais dynamique unitaire rek moo war a mën a taxaw hmm. te loolu je crois que ni ñoom ñoo ci waroon a joxe le bon exemple à parti du moment ñoom ñu taxaw ni président bàyyi nañ la carte libre nga def lu la neex après lu ci mbanti am ñun ñëpp dinañ ko àndandoo ce leadership collectif boobu ñun loolu lañ soxla hmm. mais les les les les les les lu bëri loo xam ni sa risque de nous être fatal le jour où le président choisira quelqu'un est que mën ngeen ci dara loolu est-ce qu'il est encore man li ma mën lay wax rek man awma daraja boobu awma kàntan boobu awma xëy na peut-être sax légitimité politique boobu mhm. et historique lu leen neex man nañ ko wax mais en tout cas moi je trouve que d'abord yabeel daf ci am parce que dañuy non parce que non dañu dañuy friser dañuy dañuy dañuy wàññi autorité kilifa dañuy fragiliser des mm. moins autorité kilifa gi ñaareel bi même militants yi ñun dañu mettre mal à l'aise et c'est ça qui est dangereux mm-hmm. pour ñoo xam ne dañu war a nekk une équipe très soudée ñu ànd ci ku nekk sa morom gënal la mais est-ce que Macky Sall nekkul à l'origine wu ko mais que ce soit président Macky Sall wala keneen ku mu mënti doon moi je parlais de ce que nous sommes en train de vivre. constat bi yow ci nga yem. je ne suis pas de responsabilité. ah mais il le faut nag pour régler affaire yi. mais ils sont donc tous responsables. parce que c'est une situation là qui n'est pas du tout favorable à la à, à la conquête du pouvoir ce n'est pas du tout favorable parce que ci monsieur là koo ci wax ñu ne am na mais bu fekkee ni li ñuy wax mu ngi ci ñoom d'accord naa ko ku nekk mën nga am ambition. Mhm. mais ils n'ont qu'à Mm-hmm. faire leur propre ah oui bien sûr nga demal sa bopp boo wóoloo sa bopp yaakaar ni war nga mën a demal sa bopp da ngay dem mm-hmm. nga bàyyi pax parce que ce qui est ya benn bokk yaakaar doo dégg ñeneen ñi yooxu les alliés ils sont très disciplinés mm-hmm. toog continuer conformer wu ak seen engagement mais après rek ñoo koy def mais vous avez aussi enregistré des départs Assom par exemple dem na Aziz ñu ngi koy wax sànq euh, asom moom li mu fi mu demee dafa dafa xaw a doy waar da nga bëgg a yàq wax non bëgguma ko yàq li ma bëgg a wax mooy tey jii déjà yéen ci seen biir ñu war a déggoo déggoowu leen mais am na ñu def ay démarches solitaires aussi bëgg a yàq waxtaan bi parce que bëgguma personnaliser mais c'est important c'est des exemples à donner aussi c'est vraiment est-ce que c'est pas ça le problème c'est juste une candidature politique de l'autruche non non c'est une candidature anecdotique c'est-à-dire que moi je ah. vous parle de l'essentiel ce qui est important euh, euh, ñi ngay xam ne dañu taxaw ni dañuy laaj ñoom ñëpp de manière solitaire ku ci nekk jóg taxaw mhm. yaakaar ni yow yaay waaj décret présidentielle moo leen jox légitimité bi ñu am c'est la légalité gouvernementale qui leur a conféré une légitimité politique on marche sur la tête dañ leen def nomale nomale ba pare nga mhm. door a daw wuti ji base donc nañu respecté tuuti nit ñi xam ni légalité gouvernementale boobu mhm. par le décret tout simplement kenn ku ko président defaloon ci ñeneen ñëpp war nañu mën a taxaw jàkkaarloo ak ñoom taf donc bu fekkee ne ñu ngi koy def depuis dix ans di ko def depuis douze ans gars yi jàpp seen jàmbur toog muñ kenn waxul dara. Mm-hmm. mais ngir yàlla même respect boobu ñu leen jox. par rapport à l'autorité par rapport à la décision de l'autorité par rapport à la confiance bi ñu jox président bi ni ko defal doxalal parce que la finalité l'important c'est de construire ce pays. mais noonu la ñu war a continuer noppi jàpp seen jàmbur toog ba mu décider ku ñu décider ñu ànd ci ngor bi ak même ngor bi ñu toogoon ni waaw mais ñun ñëpp kuñ ci daawul name dara wala ngay wax ñun ñu ñuy échanger ci bi ñoom ñooy njëkk taxaw ni la muñal non tu sais président bu waxee rek mooy kilifa gi de mais aujourd'hui ku ci nekk ñu wax ko ci kaw mhm. ak ñàkk wax ci kaw ñoo ci yem ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi travailler di mobiliser des moyens énormes ku ci nekk di def li nga def je ma leen wax ni la aujourd'hui dynamique unitaire bi nga xam ne l'élan unitaire l'élan mën na amati parce que non mën na am mën na am mën na am ce n'est pas ce n'est jamais trop tard mhm. ce n'est jamais trop tard pour bien faire moi je crois que ñoom ñëpp war nañu mën a toog parce que qui ne dit rien consent dañ noppi ñoom ñëpp chaque jour presse bi bind fi wax fi affaire mais je n'ai pas vu un seul ci ñoom ku ci ku ci ku ci taxaw démentir. mais est-ce qu'ils font est-ce qu'ils font confiance au président moo xee loolu mooy on dit que le président am na intention dellu si waat ci bi. l'opposition fait allusion peut-être aux réformes yi nga xam ne mi ngi koy def jamono jii ne nit la ko xam ne il veut placer koo xam ne gënul ci parti bi mais moo gën ci moom. kat la loolu opposition ñoo wax. l'opposition le dit les Sénégalais le soupçonnent. oui ci voilà que mën na ñëwaat. mais président def na lu mu waxul. wax na fi mu deful. def na ko il avait promis maanaam loolu tàmm nañ ci politique non non il engagé à faire cinq a engagé. mais ba engagé wu te nga am lu la limité da taxaw loolu débat yu jàlle la. c'est-à-dire que parlons de l'avenir de ce pays non mais c'est la vérité. parlons de l'avenir mm-hmm. de ce pays mais en tout cas moi c'est maanaam ñiy siisu li ma bëgg a wax mooy li tax ñu ko ñu def ko est-ce amuñu lu craindre en fait. que ñoom la xëy na ñooy le meilleur choix mais président mën na jël boo xam ne gënul gënul ci ñoom. mais benn choix rek moo fi am daan nay am c'est vrai. waaw kon ngay meilleur par rapport à quoi. le profil ils sont meilleurs par rapport à quoi et par rapport à qui. parce que y' a Abdou Mbaye même pas Abdou Mbaye Abdou Mbow ki donnait ay critères pour choix bi waxee na euh, ancienneté maanaam ñi nga xam ne ñoo fondé parti bi mais aussi euh, base parce que jàpp na ne lu am solo la. parti bi bi ñu koy fondé deux mille. deux mille huit la. Mhm. bi ñu ñëwee élection avec toute la coalition Macky 2012 vingt six pour cent la ñu am. bi ñuy gagné soixante cinq pour cent. ñi ñëw après moo tax ngeen non dañuy waxtaan rek. 65 pour cent la ñu am ñooñu est-ce que xalaatoon nañu ñu sànni leen ci biti ñoom ñëpp donc cette histoire d'historicité que moi pour moi c'est pas ça le plus important le plus important. Mm-hmm. mooy pendant 12 ans ñoom ñëpp noppi nañu. ku ci nekk loo wax ñu ne kilifa gi wax na. Mm-hmm. waaye ngir yàlla buñ ca yeggee nañu bàyyi kilifa gi li wax ñu def ko moi amoon na bi on aurait pu peut-être procéder autrement. Mm-hmm. lu ci nekk mën na am buñ ko waxtaanee. par exemple aujourd'hui tous les maires du Sénégal nous sommes 557. Ouais. nous contrôlons 470 et quelques mais ma nañu demander par exemple à tous les maires bu ci nekk ci commune bu ci nekk ñu ne na ku nekk def proposition. et parmi tous les candidats non ñu bàyyi ñëpp na ku bëgg a nekk candidat rek ne mm-hmm. candidat lay doon non proposition. après élu yi décidé. li may wax mais. Mm-hmm. voilà ñu ni par exemple candidat bu la. bu bëgg a présenté wu na présenté wu à la candidature. gars à partir de ce moment mairie ku ci nekk wala responsable yi mairie mais mairie sax. élus président conseil départementaux yi mm-hmm. tous les élus ku ci nekk wate. ñu xool déjà dinga nga dem ak légitimité. au moins quand même. Euh, populaire ak yëpp tout. Mm-hmm. deuxièmement que les autres acceptent kuñ ci désigner rek nga topp ci gànnaaw. Ah, Ibrahima si la machine la machine fonctionne comme ça ñun ànd noonu ñu doon ànd. on ne perdrait pas ce pouvoir. Mm-hmm. Mais par rapport à des égaux bu fekkee ni ñoom parce que ils se sentent suffisamment à l'abri de tout ñoo war a mën a tax nag léegi mu des lu dul exprimer ay ego pour nous faire perdre ce pouvoir je dis bien je pèse bien mes mots ça excusez-moi des termes de la lâcheté mhm. te loolu baaxul loolu baaxul non baaxul baaxul parce que il y a des milliers ouais. et des milliers de militants qui sont la qui continuent de les supporter de les de, nous battre chaque élection dans la dignité mhm. taxaw te ils n'ont même pas ces privilèges donc il faut pas que arriver à un moment boo xam mm. c'est l'avenir de la coalition qui est en jeu c'est l'avenir de milliers de militants des millions de militants qui sont à travers le pays et la diaspora mm-hmm. seen avenir moo nekk en jeu ñu di ko par rapport à des égos nous ne l'accepterons pas et nous ne pas